ñun la waa Sen Cirque ñun ngeen doon gis ñuy def tuuti démonstration Sen Cirque Sen Cirque lan la benn association de cirque la bu xam ne maanaam day def euh, cirque euh, cirque moom mooy lan ay acrobatie trapèze tissu jonglage ñu bëri ñu koy gis télé mais ñun ñoo fi nekk première école de cirque fii nii Sénégal voilà tey dañ doon def démonstration si mbedd mi si la ñu seen bi jël nii ah, waaw fii ni dañ doon ñibbi ah, dañ doon entraîné pare di ñibbi suñu xol bi suñu xol euh, joxe am ñu am envie def démonstration si mbedd mi moo tax ñu dóor waaw ñu ngi def attention parce que lépp lu ñu doon def fii dañ ko maîtriser defuñ ko par hasard li ñu def yëpp c'est des choses yoo xam ne dañ ko maîtriser dañuy w dañuy yëngu si wàllum specta spectacle bi ngeen seetloo Africa neex na yàlla gars yi yëpp demoon nañ foofu noonu ah, dem nañ ba demi bu dul loolu def ay spectacle de privé ay spectacle de rue aussi ak ah, ay cours social dans les centres d'accueil pour les enfants talibés aussi dañuy def si école euh, privée yi ak école publique dañuy joxe cours foofu noonu waaw ñu ngi si jéngu yomb c'est pas facile mais ñu ngi si jéem ñu ngi ñaan nag gouvernement ñëw jàpp si dañuy ñaan gouvernement bi ñëw jàpp si parce que laa lu ndaw la si lu ñuy def lu ñuy mën ëpp na li yëpp parce que li ñuy def vraiment talent la te fu nekk la ñuy dem di présenter représenter Sénégal sama xool leen kii def na Mohamed beneen def na 6 mois kii noonu mois en joxe foofu ay cours si école yeeg yooyu noonu yëpp ñii dem nañu Afrique en Équateur dem nañu représenter Sénégal si compétition gymnastique yi ñoom ñii équipe nationale de gym man it aussi la même chose. ñu ngi dem fépp di Sénégal xam naa incha allah il faut ñu jéem a rencontrer ministère de la culture pour jéem a xool nan la ñu mën a jàppale ñu def. bon on est une cirque on sociale donc qui vient à l'aide des enfants qui sont dans les rues comme les talibés les gens qui sont en difficulté dans les hôpitaux dans les mois de décembre aller les rendre heureux et joyeux par notre métier ce qu'on fait qui est le cirque. Bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui partent sur le plan international pour aller apprendre, revenir ici, partager avec des frères. Donc, euh, on demande de l'aide, de soutien, que ce soit social, mentalement, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Donc, euh, on est là chaque jour. On est des gens très, très heureux. Pourquoi on est heureux Car le travail qu'on fait, on arrive à... Euh, à, à, rendre les gens heureux. Donc quand ils ont la joie, nous aussi on, re, on reçoit la même énergie. L'énergie qu'on dégage, c'est la même énergie qu'on reçoit. Donc on est très content de ce qu'on fait. Comme vous le voyez, pas forcément d'avoir des tapis ou quoi, partout on est, on le fait. Parce que c'est un travail dur, c'est un travail quand tu fais, tout le monde est content. Et même toi qui me regardes là, si tu vois les vidéos, tu vas être content là où tu es. Donc